su ñu jógee foofu vraiment fu ñu jëm ñu ne Italie Toronto suñu dëkk Torino kan la ñuy seet waa Bamon Vision Babacar Moussa ñi ngi egg Viviane ñi ngi ñëw Torino ñëwoon na fa def fa bi yoon na ne xol na ma ci rosaay summi daal yi te xam ne dara bu set Viviane ah, come stai come stai ma ne namoon naa leen te xam naa ne yéen a ma raw Torino nag sama dëkk la attention Torino attention Viviane nañ ko daan defee rek lu waral damaa bëgg ngeen pare te xam ne ñu ngi ñëw toog fii. European Tour du 13 au 22 novembre ñu ciy àndal la reine du développement Viviane Chidid avec son groupe ñi le 13 ñi Barcelone le 14 Anvers Montmomé le 20 ñi Munich le 21 ñi Brême le 22 ñi Torino toj foofu def ko lu dul On ànd ceeg kat suñu sponsor officiel.

problem will you open to next time? Daniel.